kenn desul ki yaakaar ne moo ci gën a fegg foog moo ci gën a kawe ci mboolem bokki taalib yi gërëm bu baax gis nañ yéene ji nga xam ne am ngeen ko ak pasteef bu wér bi nga xam ne am ngeen ak itte ju rëy ji nga xam ne am ngeen ànd gi ngeen ko ànd ak nun tàmbali lii ba mu agsi fii tey loolu amel nañ leen ci cant gu rëy di ko seereel borom liggéey bi rek jëmmi fii ñu toll nii tey tolluwaay la boo xam ne dafa aajowoo ñu gën cee yeesal sunu jaayanteeg sëriñ bi di ca fedd li sunuy laxasaay fas yéene gën a taxawu liggéey bii ku ne xam na liggéey bi ni mu meloon liggéey bu rëy la caaxaan eggalewu ko fii mu egg rawatina nag ci li nga xam ne moom lañ jëm ndax li ko eggale fii ab tàmbali rekk la itte ja koy saytu mu bañ a dellu gannaaw jooju it mooy li ci gën a am solo kon nanu ko itte woon rek tàmbee tàmbalee ko ni àndee ko ni kon yaa yoon waa ngoog nan ci gën a def yitte bu baax a baax a baax ndax li ci war lépp ndax dara bañ cee sooxe dara bañ cee taxaw ni ko boroom bëggee woon rek jërë ngeen jëf mu ngi gën a santaat président ci taxawaayam ci niñ ko waxee woon rek biñ tàmbalee liggéey bi ba ni mu egsee fii noo moom noo ko ànd nu mu gën a diisee ak nu mu gën a sellee ak nu mu gën a rafete noonu rek lu lañ ko ànd ak moom noonu la ko defee ak nun ñu kon nu ngi koy dollee sant di ko gërëm bu baax di sant nag mboolem bokki taalibe yi yëpp alhamdulilah rabbil alamin kon léegi nag nee ñu jox kàddu gi sëñ Bas mu eggale mu eggaleel ko waaw jërëjëf kon dañuy jox kàddu gi Cheikh